daara saabu cheikh bi del si leen ci tey ci daara ji ci jumaa bi ci bindu Seyda Khadijatu Diouf ci diwaa daawinu sitt bi ci aarafu noon wi ci sifawul askan bi ah waaw tey lu bàyyi dikkee ma nga déparé ci tawit xanaa nuwaxidu mawlaana bi ahmada numinu wa bi rusli wal amlaaki waxool mooy mi noohidu dañ benn heehe naa suñ mawlaa ñun dañ koy defal tawhid dañ koy bennoo ah bi ahmada ndaxte ahmad rek ci nga ko man a defee tawal tawhid mawlaa manoo koo defalee tawhid lu mooy ci ahmad ci lañ koy defee nag suñ tawhid Ah, nu'minu te dañ koo gëm dañ ko defal eh, tawit ci ahmad bi te gëm ko nag woo bi rusli gëm na yonent yi wal amlaak yi ak malaaka yi waxoo moom nag moom almuhaymin mooy ki xam moo sapp mbir yépp xam nañuy doxe doxin woo xamante ni lu yëngatu xam na ko ah, wa nu ajibu tawran han sanaayi nabiyina qusooran wa tawran bil madaihi nulimu wa nu ajimu dañuy ferenewu tawran ijaam boo ko déggee taxaw ba mu yàgg ne arrêté léeg-léeg ma bëgg a wax arrêté dañuy dàttu maa ngi ko firi dàttu waaye xale xam mooy téye sama bopp tawran han sanaayi naa tagg suñu yonent bi léeg-léeg ma téye sama bopp xusóor ndax sama gàtt xol gàtt xel tax ma ne naa toog wa tawran beneen taa nag noo li dañuy kaweel bil ma daay tagg nag ndax doo mën su ma noppi mën waa mën waa téye sama bopp rek ba mu yàgg la ma ne xelet damay toog ba mu yàgg ma ne tekk ba mu yàgg ma ne xelet commence tagg yi wayen kunt lam oxsin madiha muhammadin usawidu awraqan bi hubbika awalin cey bay des wayn kuntu bu ma nekkee man Ibrahima Niass lam uhsin mënumaa rafetal madiha Muhammadin tagg Muhammad su dee man mënuma ko tagg tagg yi rafet ausawidu dama ñëw ren ay këri ay këy ay këyit oxli ne ma yëglee doo békka sama gël damaa jël xalima de koos-koos rek koos-koos mooy wan ne man bëgg naa la bu ma la mënta woy woyu rafet waaye xam nga ne mos ci woy na ko woyu rafet de wa in katabal ma daaxa eh, katabal ma daaxa yow man eh, dégg nga wa asbatoo sumaati akun mislu la siina xat ahsana wa in kataboo buñ bindee al mu daaxa taggkat ya yow man bis ndaxte am na benn table boo xamante ni ñooy tagg yonent bi liste ba ñiy tagg yonent bi ñoo ñoom la fenante suñ bindee tur ya wa asbatoo ñu saxal sumaati sama tur man sama tur daal bu nekk ci table affiche boobu akun danaa nekk man Ibrahima Niass ministre la si niro gaa yi xam ne xar ak soo rafetal man kay naa bokk ci liste ba rek li ma def bu rafetul it danaa dugg naa ci liste ba rek baax na waaye xam nga ne mos <laughs> ah, moo nekk numéro un ni mu ko waxee fa yaa force Ibrahima india azikroho bi sumrati man yusni alayka wa yusin fa yaa force Ibrahima ay waay Ibrahima moo gañe texe na india bu dikkee si koro turam bi sumurati man bokk ci groupe ba nga xamante ni yus ne aleki ni takk ay ibrahima bokk bokk ci groupe ñu nga bokk na ci groupe ñu ko doon takk yonent bi man de kon man gañe naa wa yusni mu rafetal wa tarki tamaman lis kusóori asunduxoo mahaalum fa rabbi laahu fa rabbi laahu lil kulli muxsinu wa tarki ma bàyyi man ibrahima yes tamaman complètement ma bàyyi laa takk complètement li kusóori nag gàtt xel asono jot naa ko maa la mënut nekk man loolu mënut nekk man ma téye sama làmmiñ téye sama xalima dama la takk ah loolu ndax gàtt xel loolu mënut nekk fëra bi sama borom allahu mooy mooy laahu muusin mooy rafetali ku li ñëpp yàlla mooy borom te mooy rafetal ñëpp kon nag dama ci góorgóorlu rek hasal Moustapha yow man yi joodu bi nasratin tuqasilu awsaari wa qalbi wa qalbi tusminu hasal Moustapha xëy na Moustapha يوما بين بسبوك يجود دنا تابل بين سرتين قل قاينا بين بس تنا سكي قل مفوك قلين بوك نسمع قل توك توك زيد بين رخص أو ساري سمع تري بكار وتوس من مدوهل قلبي يسمع قل قاينا مقل مقل بوك متني سما بكار داي سر بيتي سمع قل دوف أكم يلا وإن سا قواني لأمر خلافة لكي يعرفها تهيدا والكل مؤمنون way saa bu ko neexee xawwaa ni mu kàttanal ma li am xilaafati ma ma xenu xilaaf su ko neexee boo déggee xilaaf ku ko xeen rek yàlla la dooleel nga mën a xenu xilaaf moo tax aadama ah maanaam nit kon mën a di ko xuutu lu ndaj manut lu asamaan man suuf man ko dañ mën ko mu nekk seen mu nekk seen xalifa xanaa xam ne ne nit ba mu yenal mooy nekk xalifa boo xamante ni moo uutu asamaan ca la ma waroon def ut suuf ci la ak suuf mooy xalifa bi xalifa mooy koo xam ne mu nga dikkee ñaroon liggéey yëpp wàcce nga leen ne leen ba dem leen toog ma liggéey leen kon nag mën na maa doon ma xel li xam ne xilaafatan lu tax li kay arfan pour ma yëkkati ak tawit tawit pour bu ma nekkee xilaaf gi moo nekk tawit wal ku lu ñëpp mu bi ñu gëm su ko neexoon mu defal ma ko tey tey waaye nag def na ko te na ko defee ko nii nag waaw ndaxte lan bëgg moom moo ñëpp gëm waaye nag Ibrahima am na am na ñoo xam ne moom baal ma leen fu mu ne gëm de lees la ma juleen naa si aqtulu ba badaha jaadan wa inni muminun bika muxsinu lu tax su ma joxee kilaafa gi lees la ma naa lépp si nit ñi aqtulu ma day badaha ñeneen te bàyyi kat ma soo digg bàyyi taat jaar ah kay jaar na kay ndax dégg nga bomb yi nga xam ne moom lay sànni ci ci ci kii ci ja ismu jalal bomb yooyu moom lay moom moom moom di ja ci la jihaad rey na ay gaa yoo xamante ni daf leen sànni bomb rek daama nii baa un wa taa un naalu xool laamun wa zaalun bal dal na bal dal na ko ah kon nag e, jarafa ni e, di nga e, xam naari boobu bëgguma ko tudd ñoom yëpp ay bal daf leen dal jihaadan wa inni man Ibrahima Niass mu'minun ku ko coow moom suñu tëkku laay rafetal man gëm naa la te laay def damay man lil jahaalati waa di ànd waa ak suru raayaati sali bi man xam-xam waa doo joxe doole ma yëkkati xam-xam daane jaahil te te bàyyi daf ko jëf de jàngale ba ba mu njëkki gàmmu gu jot moo koy gàmmu mooy mooy waxtaan mooy def lépp bind ay téere jubbante ay nit tarbi ay nit daan nag daan jaru nag waaxturu naa dama raayaat sel bi drapeau bi waaxturu ma drapeau croix bi waaxturu ko ci suuf ndaxte croix bi li mu bëggoon mooy Sénégal ñëpp nekk ay kii dama naa seen drapeau quatre-vingt-quinze pour cent mënu ci dara ah sooy nañ jàll fa bi yar fool jawr asimo fala yura ci wàllu elmi wa ani fii yooyu sëyib fa bi ci man Ibrahima Niass yor faaw la yëkkati al jawru njubati alasungu bàkk njubati gu rëy man la koo dine lu may ci man gis nga loolu nag bu ko bàyyi wax bu ko bàyyi waxee ah dëgg yow fi nii foo mën a jaar njubati ga nga tegg ko tudd da am fëtu fii nga mën a jaar dong njubati gu mag gi dem foo mën a jaar amul benn buntu boo xam ne mën dafaa jaar tey teggi njubadi te jaaru fi foofu yar fol jawru asimu fala yuraado fi sal lu mooy xam boobaa ku njubadi dañ ci yow doo gis lu mooy xam-xam wa diinu ak diina alaxam ne fi waa xamante ne gisee boo xam ne diina ju rafet ngay gis moom te gis nga fii nii du amee ci du amee ci ma xëtëb am du amee ci xëtëb ma jóg bii rek nga mën a dikkee nag tey nga am nag nam ko waxee ne Ah, bu xëyee saa dikkee eh, léegi na nga xamante ni ay maarifa mëccëg bu fi amati ndaxte pays bii pays bi nga xam ne mooy pays ndoom mëccëg am place pays Ibrahima it mëccëg am nag koo dégg mu ne na wala dëng na kooku du du taalibi moom daf ne moom maa xëttu jaalastu sa fi xam man du def mukk may toogandoo ku jaay du nekk sama sama sama sama toogandoo wala mu asab si ab wóole xaw mi lu ma ànd may lu may xam-xam ñoom lay àndat àndandoo ànd ay àndoo waxut ay taalib ay àndandoo yi may àndat ay kuy borom xam-xam taxul ñi nga xam ne mooy naari gànnaar yi téeméer ak ci ku ci wax rek nga foog ne kii moo ci raw kon nag lii dinaa ko yëkkati yëkkati njubadi gi ah dégg nga maam xam-xam jóg ak diina joo xam ne mooy dina joo xam ne mooy dina direct yu sa yenu fatun ci rijaal laay fi tili raxatin wa isin wa tamjidin wa bil xaqi alanu su ma defee ni fatun si day mujj rijaal laay gaa yàlla yi fii sili raxatin ci keru nopp noppal nga fii keru yàlla keru góor yàlla yi ku dikku ci ker gi nga xam mooy keru malamité bi amuloo ko noppalu tey te ñëpp ku nekk ci kër gi billaahi ma la ko ku nekk ci ron kër gi yaa ngi kar kar fa dëng dëng dëng danga danga danga danga danga maa ko wax de ah <laughs> dëgg la de fii rek nga ma noppaloo fatum sir yàlla fi cëral te bu ne góor yi yàlla yi nag goo xam ne ma ni mu ko waxee ku ku rempli ñeenti ka ñeenti bal man baqa bal faray wa salaka najuru salay wa nafsi war a wa rajul unsa aw sakkan mais xam jigéen boo tapikite yow xam jigéen wala góor yëpp rijaal lay lañ tudd léegi moo tax nañ nga lawaay yàlla mu yàlla ci jigéen góor gu ànd ak góor gu ànd ak jigéen ci biir kër gi jigéen ji at mi nekk góor yow nga ñàkk at mi nekk jigéen te mooy dëgg de ko at mu rek ndax ko at mu rek jigéen nga fii ku admut fii yaay góor ku admut jigéen nga maa la ko wax de <laughs> dégg nga moo ko wax di un sa aw sa kar wasir lil xëyri wa baal wa dara ku admut boo ko joxee sombu naan maqsad beeg ismu yéeg yooyu yëpp boo ko joxee bu ko sikkaree musiba la ko jural bàyyi ko wax de kon nag fa tum sir yàlla fi silaatin wa isin dañu nekk ci wegu wa tam jiirin dañu nekk ci dëggu wa aalanoo ñu faangaaral bi xaq ñoom ñu wax dëgg ca kaw ca kaw la ñu wax dëgg kenn mënu ci dara te kat ba ñuy wax dëgg doo dégg ko leen contre ko leen koo xam ne dañ dugg seen affaire ndaxte dafay ñoom dañu àgg foo xam ne dañ leen ne moytu nekku ne yé kooku moom sawaay taalibe yi daal lu ngeen mën a kawaan moytu nekkul moytu nekkul lu ma diw <laughs> dégg ah, <laughs> ah xam nga damay fàttaliku ci si si ndar ci ndar Eh, eh, eh, suñ suñ kii ah, suñ waa kër gi xam nga man kër gu ma mos nekk rek maa dama yar xale yi dégg nga suñ jëmm joom yàlla na ko yàlla yërëm doom yi nag damay dal seen kaw dama dégg moom bàyyi kii mooy te nekku leen ma us géey bàyyi leen géey mooy te nekku leen géey <laughs> waaye ji nga fi ne ni muqaddam yi may gën a moytu nekkulu <laughs> ñoom mooy ne ko leen géey la ñu wax de ah dëgg-dëgg yàlla rek xam naa ñun di ci wax buñ ci wax de ah ñi nga xaw yoon bokk yàqoonu simaamul alamina jëmi xom bi ay diri ji yàlla biir uloomi tabakkul su ma defee lii yàqoon dafay nekk simaamul alamina ah biir don mooy nos ko yoo xam ne mën ko binde fi jëmi ñëpp bi ay diri jàll ci ay looy góor yoo xamante ni tamakkanoo dañoo cadre bi ulumi ay xam-xam waxuma kon nag gis kon nag koo xam ne doo cadre ci xam-xam bokkoo ay gars yoo xamante ne dañoo nekk cadre ci xam-xam ñoom boobaa ñooy jiite ñooy jiite li nga xamante ni mooy sama faydu mooy jiite diina ji fayyaatul masihu wa rijaalu rijaaluhu bi diini imaamil hasim yitu dayinu hunaalika amal faydu laa sakka lan tara siwaa aarifi billaahi daf ko def siwaa aarifi billaahi waaye yàq la siwa aarifin billahi wa sar umar kudi ndaxte li tax mbir la ci biir léegi nag gis nga góor yi ñooy ñooy fàqal insa fa yati na jëliñ masiwun waa juñ xamew ci one fa yati insa mu ne fa yati masiwun xam nga luy masiwun mooy kuñ xamewut ka ngeen xamewut mooy ñëw ndaxte masiwun mooy kat u yàq nit nit nii ko xam kuy nit aha loolu mooy masiyatu ole mu ne insaaf fa yaatil masiwu wa rijaalu gaa yi nga xam ne ñoom laa formé rijaaloo ay gaayam lañ ndaxte foofu mooy rijaalu xilaafatu ay rijaalam mooy rijaalu masiya yu rijaalu masiya ñoom ñooy rijaalu xilaaf lan mooy masiya mooy malamitiya malamitiya mooy ñan ndaxte man lu ma la wax mën naa ko xam naa ko mën naa la ko tekkil malamitiya mooy masiyiti ñu tekk nahnu saadaatul malaamité ñun sangi malaamit lañ ñu ne ko bàyyi bi sangu malaamité ñu mën suñu digg ko wax li mu ne seen naa satul maqamat wa tërkul karamat suñ boo suñ problème ñun dañuy dañuy nëbb dañuy bàyyi maqaam yi nëbb karaama yi kullu si xirfati mbi xirfati tarbiya nga demal toppatoo sa mécc wa kullu si soxlin fi soxli tarbiya nga am nga soxla demal topp laa na dee daawa wala masiyata wala xususiyata ñun duñ fi campagne naan ñun bàyyi ñun taale bàyyi comme manifester yi nga xam ne waaye waaye nit ñu xam ne ñuy defee ñun ëtt bi duñ ko def góor yi insa yi góor yi masi def lii wala ndee da wala masiyata ñun kay bokkuñu ak nit ñi bàyyi na déet booy wax loolu waaw wala xususiyata ñun kay lay li ñu yàlla may may ko kenn bàyyi na ñetti yëpp ku nekk pays bii ñi ànd ak masi bi duñ wax duñ wax loolu mooy effacé wu kon boo fi nekkee da ngay avancé waaye dikk na ma dikk na man tey il faut mbooloo ma dikk daal da nga pour ñu xam yaay kan waa ji ñëw na may leen ko yor ñu fàtt la déedéet boobaa dañuy dikk ah fa yetti ma suba rijaalu rijaalu ko ndaxte rijaalu wilaay bi ñoom seen liggéey jeex na ndax fa yaxtu mu insa la yekkul wilaay ndax insa ba mu dikkee tëj foofu la wilaay wilaayatu amadi gi jeexee léegi nag mu ubbi nag fi nga xamante ne mooy xilaaf yi nga xam ne mooy xilaaf masiyatu yi xilaaf masiyatu mooy boobu nag moo dikk nag xam nga kon insa tudd duñ ko insa masiyu lay lay lay tudd léegi weneen tudd la mooy kan miyatu bi kan miyatu mooy kan koo xam ne yow xamuñ la yaay kan dañ fa ne kan miyatu noonu da ngay nekk ci magasin ba déedéet xam nga am na yoo xam ne dañ tëddee seen sëriñ Maktoum foo ne Maktoum mooy ku tëdd kenn gisul la sëriñ bu kenn gisul la déedéet Maktoum mooy ku tëdd ci mbedd ma derombante gars yi xam ne fa yaa fa ya te seetal kon nag euh, fa asmaa u wal awsaafu wal kawlu ju àqatu ay la seetal léegi mu dem foofu mu ne kon nag fa yaa ajaman min baatin wa saayiru kon nag nga dikk nag nga dikk foofu nag baatin mooy te mooy saayir bi kat nga jàpp ne baatin bi benn baatin aw fi lépp a ngi fàngaaral ci digg mbedd mi xanaa nga xam ni ñàkk xam moo fi nekk kay kon nag lii masihu ba muy ñëw wa rijaalu rijaaluhu ñu ne ko ah moom monsieur bu dikkee ndax ci tubaab lay doon européen lay doon wala nitu lan lay doon xam nga foofu la nit ñi daanoo fi ngay fi ngay xoolee fi ngay xoolee yàlla fu muy génn dafay soriante ah mu ne yëtta day yéen bi diin imaam Hasim yëtta bu dikkee rek diina imaamul Hasim yi moo nekk diina diina imaamul Hasim yi mooy nekk diina waaye doo dikk ne mooy kat lu ne kat di kat amul nasaraan amul yow dara amul diina jii ci lay nekk kon foo déenee xeesa naan dafay dikk gén naan indi lu ma xamul yow xam la kuy xeesa masiw te ni ñoom dañuy wax masiw sax xam nga ko defee ku naa li kaamat fay laa sakkalanta woy naa li ko foofee ba xam ma ci ay matal ay faydu faydu fa xam nga nit ñi ma da yaakaar nga ne yow faydu faydu baay bi dana toog ba daj àddina yëpp léegi ndax nit ñëpp dañ dañ nekk jullit du am kon bul waxal xoola bul wax bàyyi lu waxul kon àddina yëpp dañ nekk jullit waxuñ loolu waaye nit ñëpp bu nekkoon jullit ndax dañ dikk bàyyi bàyyi tarixa dikk tarixa tijaan ndax dana am amul waaw nit ñëpp dañ ndax dañ bàyyi tarixa tijaan dikk faydu bi ndax dana am amul kon nag faydu foo muy matee gars yi mii yaa amoon faydu yow mi dugg ci faydu yaa ci dugg te pare ko nga am faydu siru sa siru bi mu am faydu mooy la jëlee ko ci aadi ya foo déggee lu nekk dafa am fu mooy jëlee sa siru fu mu jëlee faydoom ci aadi ya ah, nga dem am tawit ah nga dikkaat sëroo am faydoom fu ko jële ca mu amadiya ah mu daal di am melow sa ah, dégg nga maam ah, eh, xel wala jismu xam faydu fu mu ko jëlee ci amadiya sa xol xam faydu fu mu ko jële ci ibrahim yi ci xilaafatu léegi nag mu jël faydu nafsi bii moo ci des faydu nafsi bii masiye bi ci nga ko jëlee faydu masiye bi nag boo ko jëlee rek bu naa li kaamal faydu ah kii la na ah, léegi faydu bii desoon nag moo ñu dese nit ñi nag bii nag dañ moo jàggi siraat bii nii ku ko jàgg jàgg nga siraat ku ko jàggu da këpp maa la ko wax léegi nag nga toog fii naan fa man baa ba deew jàggi woo siraat <laughs> ah nañ jàggi siraat suñ jàggee siraat mën a jàll su ko defee ñu mën a dem waaye nga toog fi naan man kay maa man kay bàyyi déedéet هناك فيختم هنالك امر فيض فوفي لفيض بارك لا سكلان ترى سواء سكل waaye ay mahjub mëccub ñaar yii duñ ci bokk bàyyi gis la ndàq de du oustaz gi bàyyi mu ne isnaan lay wala ñu ne tariq ñaar bokkuñ ci man bokkuñ ci tariq bi ci tus lay saa wala ñu ne tariq fi shay in ñu ne ko ay mu ne mëccoobun lam yëslu yow mëccoom nga demula def sulukul xaqaayiq waxuma sax sulukul ibaada defula ko balaa nga def sulukul xaqaayiq ñaari suluk defuloo ci benn teqale ko ak man yóbboon mëccoom la wa saalikun lam yusab nga de nan maa ngiy jaay nan maa dégg fiqe maa ngi jaamu yàlla te nangu ko la tarbiya soobu ñaar yi bokkuñ ci man wala min tariqi fi shay'in in baqiya ala xaalihima wa qawa ala sayrihima bu dee neen nañ nekkee noonu lañ nekkee taxaw seen sëyul man bokkuñ ci ndaxte bàyyi moom du taxaw yow nag koo ànd àndat bàyyi ne àndoo àndu la bu kii demee kii toog bokk jotatu de kon nag bàyyi war dal na yoon li nga mën a jaar pour mën a ànd ak moom nga dikk taxaw ne fii laa yem man yaa ci demal bokkatoo lii nag oustaz gi wax ko boo bëggee àgg ci faydu faydu ba siiw da ngay dikk ba nga xamante ni sa faydu bakkan bii bakkan bii moom la mooy jàgg seral ci pays naaso bii jamono bi nga xamante ni ci jamono développement jamono bëgg alal jamono bëri alal jamono saay-saay jamono mbon jamono yëpp nga dikk tey jàggi siraat ba yow loolu yëpp nga di ci unaalika mat fay foofee la fay du mate sëg laa sàkkalantrasio aarifi bilaay boo wax aarifi bilaay rek dafa gis ah doo fi gis mukk ñu ne monsieur fii ndax am na monsieur fii aarifi bilaay rek ko xam laa ko ah wasar seetal wasaro murtun ak sare boo xam dafa dañ ko xereñe sare boo xereñ mooy lan tey yow sariya sariya boobu xereñ yow xam nga ne njàpp njàpp rek ca nga ca nga ca njëkk xam yàlla ñii ne njàppal ñett ñu ne bii farata la bii sunu la bii mëndóob la ñu ne déedéet njàpp kay ñett yëpp farata lañ xaarifi ne yi njàpp yëpp farata lañ soo dàqoon euh, euh, Muhammadiya bi bàyyi Ahmadiya doo dem soo dàqoon Ahmadiya bàyyi ba doo dem da ngay ñetti yëpp fekk rek raxas nga raxas nga fii ci biti ci maraati bi ngay dàq dem ci biir nga raxas galax na ko ci biir ngay nga raxas ci biti ngay raxas ci biir kon mooy ñett kon loolu njàpp kon du xàq kon léegi léegi nag ñu ne julli julli léegi nag setal taxaw rukkoo sujjóot léegi nag ba nga taxaw ñu ne sori nga de nga taxaw ñu ne des nga de mu ne was jut waxtari xàggal ci suuf jege si nag jege si waay ji mu ngi ci te yaa ngi ko doon xool ci kaw a kaw boo demee foofu doo ko fekk de <laughs> ah <laughs> ah <laughs> waaw kon nag léegi yow am na lu lu kii seetal kon ne lii ngay topp na par benn benn benn seetal nag jullil na la julli ah julli kat ak iqaamu salaati saxal julli gë waxuñu iqaamu salawaati xaafisoo ala salawaati lañ wax waaye iqaamu salaat benn julli la genn julli muy julli julli googu nag lañ dikk yow jëlal la ko yow yaay heure yi xamu na ne heure julli du ci du ci biti ci yow la yow sa siru bii dafa am heure muy gee fànnaaw siru damay loo gisu dara sa siru gis nga ko aar yee gis nga ko kon nag fii mooy kooku mooy ah léegi nag ma xamante ne mooy sa guddi ga kon nak siru nga julli foofu foofu mo iru iru nga dem fajar ji teul ro nga ro ngay feñ yi day nga feñ ci ñu ne julli kon sa gi mo waxtu yi ah nga julli mu ànd ak nga dem ñu ci suwar amna ku xamne mo nga julli ci julli ci ca ci suwar han ah? nga dem nak am ko xamanteni moy sa sayr sayr mo dik dik rek sayr nga julli foofu takusan jot bañ ne ko wax am ko koo takusan julli war xasit nga dem xol bi del jël jël jël yërëm benn julli des mooy timis waaw léegi boo juloon ñeenti julli bàyyi timis ndax da nga pare sa diina da pare nga dikk nag mooy timis nafs bi nag moom moom nag mu ñëw nag seetal nafs bi moo doon daw ñetti ñetti ma ñetti masaayit la doon daw moo tax nga def ñaari ñaari rakka def ñetti benn rakka daal di génn ci biti ah wal layli wa ma wasaqa wal qamari isaa tasaqa la tarkabuna tabaqan han tabaqin maa lahum laa yu'minuun lu tax gëmu leen la ilaha illallah maa ne xamal li ñu a wax sax ñu ko bëgg a wax kon nag ba <laughs> yaa mën a jeexati kii day jeex kii dafay jeex rek <laughs> dëgg dëgg kon nag lii xol ni xol ni ko alquran waxee rek walay lii wamaa wax maa ngi giñ ca guddi gaag lam dajale kuy layu léegi nag kan wal xamari isa seret weer waa ginde gén wér tël la tarkabuna tabaqan yéeg nag yéen ngay jaar fii jaar fii yéen a ay jaar-jaar tabaqan han tabaqan famaa lahum laa yu'minuun lu tax du ngeen gëm nag gëm jot de wax dëgg yàlla bilaay bilaay wala bilaay si wax na ko ko ko jaar fii ah wasar lii mooy sarixa boo xam ne dañ ko léegi da sarixa bu xereñ mooy sarixa xaarif moom lépp lu mu def rek dafa am fu mu teg amul lu muy bàyyi génne asakaak luy génne asakaak da xaji màkkaak looy aji lépp xaqiqa la sariha dafa dikk rek dañu rëddal yoon yi nga xam ne fi la jaar pour mën a jàll képp sariha nag kon nag ku jaar ci yoon ndax da nga dem ci dëkk kon nag fa yaxtama isa laay takkoon wilaayatan waaye dama maatro yi fal xeer yëpp fa yaxtama day tëj nag isa isa xam nga isa mooy xatmu laa yakkoon wilaayatan wilaayatu wilaayu waaye dama maatro yi gannaaw bu ruuxu demee ruux gi nga xam ne mooy ruux gi nga xam ne mooy ruux Insa moom boobaa foofa wilaay dafay tëj fal xayru yëpp fanu boobaa nag xayru yiw dañ koy rog ne ko yow fii nga yemoon moo tax xarnu ba nga xam ne mooy xarnu wilaay foofa la jeexe xarnu xilaaf xarnu xilaaf nag doo ko doo ko continuer fooy lam yëkkul manis ku la zalsalat salasilu saatin wa naadal mu assinu فيا ربي حقق بالأمين رجاءنا فما لي سوى أن أسأل الله مؤدنا فإن لم يكن بعمل man koo xam ne yeskuru ma ngay bàkk allah allah suñ demee ba kenn bàkkatu laaw te kan gis nga bàkkatu laaw yow da nga gis da nga dana am benn bés boo xam ne àddina bi kenn noddul kenn jullu da loolu nañ ci leen jublu mooy koo xam ne fa ñuy war a bàkkee laaw man la fa bàkkee wuñ fa laaw ndaxte laaw bàkk guñ ko baaw laaw laa ilaaha illallaah du bàkk du bàkk wala wala fana lakka zikrak xay la latu xay la latu seetal la waaye du bàkk sikkur ba nga xamante ne moom bokk ba nga bokk buñ demee ba mën a sikkar foofu nag kenn mënu ko faa bàkkee ndaxte ah dañ ne laaw kat wen tur laaw ndax tur mooy mooy la mooy laa ilaaha illallaah te laaw alhamdulillahi waaw moom rek wen tur la am laysa li saat alati ismun ben tour rek la am tour wona a démé ba mënuñ ko bak waxuma tour yi nga xamné moy tour tur yi de ndat haraf mom ay haraf la haraf haraf junj la waaye du tur bi nag jëmmi turwa bu féké ne dem nañ kenn mënut a bàkk jëmmi turwa kenn du ko sikku ah lu xew sal salat salat sur saat saat commencé rek ah yëngu-yëngu ndat tour yi mo fi téwon te tour yi mo fi téwon aduna tour yi mo fi téwon aduna léegi nag gannaaw mu ne bàkkatu leen ma maa ngay dem géew boo xam ne moom dañu may bàkk ndaxte fii moom li ko taxoon dikk mooy ñu koy bàkk léegi nag mu ne kon maa ngay dem ci biir nag aalam xaalam boobu nag xaalamu xilaaf bu mu dikkee moom dañ ko bàkk bàkk yoo xam ne mosu ko dégg ci kaw suuf foofu lañ koy bàkkee ji kon nag salaasul saatin war naa daa daa di woote almosi na noddkat bi ne acca ayoo fii jeex na jeex na jeex na fa yaa rabbi ayow sama rabbi xaqiq yàlla na nga saxal raja ana suñu yaakaar bil ci ku ñëw rek ami yar balal ay yàlla suñu yaakaar yàlla na ko saxal ci ki nga xam dëggal ci nga xam ne man de man Ibrahima ne sama lii ma maa di noonu benn euh, matière première si an asal lu ma laaj rek ala yàlla man ama matière première booy utee alal man daal may laaj yàlla rek yàlla may ma yàlla may ma daal laa ko may ma laa am alayhi salaatu laay suma salaam woo salaatan bihaa li diini asriya ma'manu xaalis yàlla nekk doon salaatulaay suma salaam woo salaatan bokk bihaa ci moom xasriya sama pale bi ma'manun wóolookaay la diini ci diini ci yàlla nag ma defal salaatu ak salaam boo xamante ni sama pale bi fi la ji amee xel mu dal xaw ma ban xasru nag bàyyi moom tabaxut ne su la tabax <laughs> te mu ne sama dégg nga sama pale bi ci la diine di xelam dale te mooy këram gi mu ne alayhi salaatu laay suma salaam ho wa alin wa sabin wala sina qad ahsano xaala yàlla nekkoon salaatu laay suma salaam ho wa alin wa sabin wala sina yaa xam ne qad ahsano rafet asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu